ci keneen ku ngeen porté yi tamit seen i gët Cheikh Tidiane Dièye donc moom ak Habib Sy naka ngeen di fas yéene defandoo ñoom ñëpp ci campagne bi ndax da ngeen leen di teg loxo au même ni ngeen di defee Diomaye wala daa lu nar wute. xam nga jibi loolu moom du man maa ji tontu. ah laaj naa ko mu ne moom du moom moo ci ah, tontu laaj naa ko maître Tine mu ma du moom moo koy tontu. xam nga ñun ñun ñëpp laaj <laughs> naa ku ci tontu. ñun ñëpp la ñu xaar kilifa gi mooy Seydina Ousmane mu sell bi. ah moom mooy décidé ci loolu. effectivement bu joxe woon ndigal ne yéen waa Pastef yëpp ak sénégalais yi dem leen ngeen woteel Amadou nangam ba ñun ñëpp ñu tourné wu. Ah, mel ni ah, Amadou Ba musu def dara ànd ak moom Amadou Ba rek kay waaw ah. Amadou nangam ba waaw dama la ko joxe noonu exemple <laughs> su joxe woon ndigal kon ñun moom amuñu bëgg amuñu bañ bi mu ne na sénégalais yi génn ba Bassirou Diomaye fay ci ngay door yëg ne parrainage am na ci dëkk bi d'accord waaw ni ni mu amee woon ay candidat candidat yëpp jàll comme ci ne na sénégalais yëpp dem ànd ak kooka yëpp yépp xew xewukul kon da ngeen ko gisoon. non président Ousmane Sonko moo ko njëkk a mhm. nañu waxtaan ci kaw plan B. boobu góor yi àndoon ak moom. ñoom ñëpp ñoo maase waat delloo question bi ne ko bu ñu demee ba yegg ja yow la bàyyi nga tànn koo tànn ànd nañ ci. kon mënuñoo bàyyi ba mu dem prison ñuy dugal suñu xel yi naan Ousmane lii la war a defal laa la war a def déedéet nim ñu defaloon ci Jomaay Fay bi mu demee ba xam ne ñii dañuy caaxaan te Sénégal yi bëgg nañoo parrainer ba pare bëgg a jox seen xaalis ki ñuy parrainer ci la joxe ndigal nañ parrainer 111 na juróomi nit yu ñu jabal ne dem nañ jëli El Malick bokkoon ci. Mhm. Abbas Fall bokkoon ci Guy Marius Sagna bokkoon ci mhm. Birame Souleye Diop bokkoon ci. Mhm. mais bi mu ne lañ parrainé Jomaay ñoom ñeent ñëpp da nga gis ñu bind seen communiqué na nañ dem ranger wu ci ginnaaw Jomaay yemuñ Jomaay kon tey jii bu génn waatee communiqué na nañ dem jàppale ji diw diw moom mooy ñun ñëpp dañuy tourné dem ànd ak moom. dem ànd ak ndax xam nañ defu ko ngir bakkanam. da koy def ngir réew mi te intérêt Sénégal moo tax mu di ko def moo ko tax moom question boobu du ñu jàggal fenn te fii ma nekk militant passif boo jël wala ku bokk passif koo jël nii la la koy tontoo nii la koy tontoo mais mais mais ma laaj sànq man tamit ñu jox ma tontu benn observateur koo xam ne xëy na xelam màcc na lool jëm ci wàllu politique mais mu ngi posé benn question mu ne le fait que opposition bi am ay candidats yu bëri ndax du piège boo xamante ne ni moom la leen ñi nekkee ci nguur gi tegal non loolu du PS élection locale yi amoon na candidat yu bëri élection législative amoon na candidat est-ce que bii bokk na ñoo bokk xam nga sénégalais yi euh, vote bi di ñëw présidentielle di ñëw ñaari vote moo fi pour continuer li fi nekkoon loolu ñëpp xam nañ kan la hmm. ndax moom moo taxaw wax ko ñëpp dégg mooy candidat continuation la yor Amadou Ba waaw moom kon dafa bëgg continuer déegi bëgg continuer ñàkk géej gi Sénégal bëgg continuer yu bon yi fi amoon yëpp kon moom ko ku bëgg loolu continuer Sénégal ba nga ko wateel mais candidat anti système moom ñëpp xam nañ ne kenn la muy président Ousmane Sonko Ousmane Sonko li mu bëgg ci Sénégal yi xam nañ ko kon ñun campagne wuñ programme élection yi di ñëw référendum la xam nga référendum. référendum référendum oui ou non. effectivement maanaam képp ku képp ku bëgg képp ku bëgg Ousmane Sonko génn kaso junniy Sénégalais yi nekk ci biir prison yi génn kaso. woteel leen ki woteel leen ki Ousmane ku bëgg nag ñoo ñu des ci kaso bi seen njaboot continuer di souffrance déegi yokk na mi yokk yeneen ak yeneen yokk na nga wooteel Ba hmm. kon loolu moom leer nañ kon Sénégalais yi duñ taaral seen temps sax di wooteel yeneen candidat yeneen candidat yëpp bu ñu bëggee leen noppal dañu renoncé seen candidature ñëw ànd ak Ousmane Tek hmm. loolu mooy dëgg buñ ko defut tamit li amoon ci législative législative def ñaari candidat ma amoon ñaari candidat ñu am pilifores hmm. kon kay Sénégalais yi wane woon nañ fi jëm bu baax a baax législative ñaari liste mu amoon presque quinze liste amoon mais kantaa yëpp ki ci am pëlifore su ma jumul mel ni Pape Diouf nga ci dudd ñeneen ci des yëpp wàllu moo yeewi moo yeewi ñu jël quatre-vingt-trois députés Benno jël quatre-vingt-quatre députés mm-hmm. ñoo seddoo assemblée kon Sénégal yi ni ñu voté xam nañ ko yooyu moom ku koy analyse sax mooy xamoo fi Sénégal yi toll te lii ma la wax di nga ñëw laajaat ma ko fii incha allah. incha allah mais en attendant peut laaj bi mooy euh, kooku bi ma ko laajee li ma tontuwaat mooy euh, dafa am volonté manifeste pour disperser les voix ngir ñu mën a dem ci deuxième tour. waaw loolu moom ñoom moom lañ bëgg. mais loolu Sénégal yi pare nañ ci élection yi di ñëw jibi référendum la loolu Sénégal yi il faut ñu xam ko. mais foo ko teg nag xam nga président Ousmane Sonko élection législative yi dañu woon ku wooteel benn liste bu dul yee wal na nga xam ne mag nga sànni sa carte boobu ñi ko gënoon a saaga tey jii Ousmane am na ci ñoom dëgg ndax buñ fàtte ne candidat yëpp dañoo taxawoon ne buñ demee assemblée nationale dinañ fexe ba loi góor jigéen ñi bu ñëwee ñu def ba mu ñu fexe bañ criminaliser ko. Mm-hmm.

danga nga ne sa carte APR nga ko sànni. loolu kon ci candidat yi yaakaar nga ne am na ci ñoo xam. ne ni candidat yi ñu ci bëri bëri Macky Sall mën a faire caution sax. candidat yi nii nii ñu ci bëri Macky Sall mën a faire gis nga seen coalition boobu ñu teg leen moo ko tax a jóg mooy nu ñu fex ba dàq élection yi si def ay signature yoo xamante ne kenn mënu ko justifier jàpp naa ne yooyu sénégalais yi xam nañ ko xam nga li professeur Kéba Mbaye waxoon siis Kéba Mbaye hmm. ne sénégalais yi même bu ñëpp dee tëdd ndax li ñu indi ci moment yi ñu toll kenn rek la muy Macky Sall Macky Sall ndax ñun bi ñuy dugg ci politique liñ tàmbalee nga war a njëkk xam lan la. Mhm. xam-xam lañ njëkk teg ci kaw penc mi. ba mhm. Sénégal yëpp topp suñu ci. Mhm. ndax ñun ñoo fi njëkk a wane suñu programme def débat public def ko place de l'Obélisque. bind livre tudde ko solution. lépp lu ñu jàpp ne mooy jafe-jafe Sénégal yi ñu indi ci ay solution. teg ay borom xam-xam ne laaj leen ñu ci. yaa ngi fàttali ko débat boobu Cheikh Tidiane Mbaye bokkoon ci. Euh, Khadim Bamba Diagne bokkoon ci. Pape Alé Niang bokkoon ci Maymouna Ndour Faye mii tey bokkoon ci. Cheikh Yérim Seck bokkoon ci. am ñu doon laaj xam-xam am ñu doon laaj ne ko dégg naa sa jabar day muuru laaju dof yoo xamante ni ci la leen Sénégal yi doo xeeb ba léegi kon jàpp naa ne ñun li indi woon ci penc mi mooy xam-xam mais gis nañ ne xam-xam boobu senegal yi topp nañ ndax sénégalais yi ci la ñu joxe troisième ci élection présidentielle xam ne lii raam ci ñag bi li jëm bi ñu génnee ci présidentielle ñu teg kon ñoom ñoo fexe ba débat débat penc mi indi ñëw ci xasante ñëw ci waxante lu ñaaw kon élection yi di ñëw ba léegi xam-xam ndax ñun dañu suñ programme pare na kon basiiru bu Ousmane Sonko lay jël. suñ programme non Basirou Basirou Ousmane Basirou Ousmane. six la du ñaar kenn lañ. <laughs> kon war ngaa kontaan nag. yow nga ne bi may door émission bi da ngaa meroon. non non xam nga bu ma nee la kan lan mooy jibi ci yow doo ko ndax boo làmbee sa loxo la. loolu loxo la boo làmbee sa mën la lii sa boo làmbee bopp mën lii sa nopp kon lii tudd jibi ci yow lan la doo ko wax. <laughs> waaw Basirou Ousmane noonu la demee kenn mënut a xam kan mooy kan ci ñoom. Mhm. kon loolu moom du débat moom te ni ma ko mën a waxee ci Basir yi noonu laa ko mën a waxee ci candidat yi Ousmane Tànn yëpp Ousmane ku mu wóolu ba ne yow la rek kooku moom la ñun amuñu ci luñ ci commentaire mhm. mosuñu wax ne Ousmane du juum mhm. wala président Ousmane Sonko Moussa Lamine du juum nit la comme ñun ah c'est c'est waa l'erreur humaine sax mais xam nañ ne yéene moo set nit nag bu sa yéene seetlee ndax euh, loo mën a def ci àdduna ci lislaam yéene ji la ñu xool julli sax boo fàttee yéene du baax kon bu yéene seetlu moom sa dara sellul Ousmane yéene moo sell ci Sénégal. l'intention est bonne quoi loolu moo tax ñun bu juumee sax dañ ko mën accepter juum gi xam dafa juum ci bonne voie. te xam ne amoon na yéene. def lu baax xam ne amoon na yéene def lu baax. yéen moo tax nag ñun ñëpp ñu mën a maase jox suñ kàddu ne ko loo ci def neex nañu. Hmm. dégg nga li ma la wax koo xam ne ñun nee nañ la bu tax nag Amadou Julde Ba ne ko yow la ñu ne ko moom la ànd moom campagne. <laughs> foofu lañ nekk ñun nekkuñ ci logique gu xalaat fii la leela war a de dañ ko bàyyi suñu bopp tekkiwul nag bu ñu amee xalaat duñ ko ko wax. Hmm. su amee xalaat dinañ ko yóbban ne ko lii lii mooy ci suñu xalaat mais dara ñu bishop moom ci lay dépendre. Hmm. boo ci waxee dinañ mel ne mosuñu am xalaat dañuy rangé wu fekk ci la sa xalaat défendre ko ndax loolu la ñu ànd loolu moo di ànd. te xam nañ ne bi mu bi mu taxawee ne pare naa pour porter projet bi te du ma dellu gannaaw wan nañu ne ne porter na ko te delluwul gannaaw. Hmm. waaw euh, ci tuubaa euh, yéen ñi fi dëkk nu ngeen fas yéene Euh, dox jëm ci élection yi parce que fii ville bu particulière la. non fii moom combat amu fi. combat amu fi. non non. ah luy combat lii moom maa la ko wax moom fii moom. te ñi nekk ci camp présidentiel. fii moom du ñu am dara. loolu moom maa la ko teel xam ko Touba nga dëkk Touba la nag. xam nga bu baax bi kenn du ko jàngal. <laughs> xam ne a fii moom ginnaaw bàyyam moo fi nekk ba jóge fi. bu uh-huh. du fee gañe moom mi nga xamante ne kenn xamul fu dëkk ci Sénégal. Uh-huh. kon fii du combat. non non fii du combat fii moom Amadou Julde ba du fi am dara moom loolu moom ku teg kaa mu dër sama loxo. Hmm. tey jii boo ko joxoon milliard ne ko tuddal ma juróomi quartier ci Touba du la ko wax. Amadou boo ko joxoon milliard laax milliard wala lim gën a bëgg mooy di nga nekk président Sénégal 2024 ne ko nag critères yi mooy tuddal ma juróomi quartier ci Touba ni umpale woon ne Cheikh Tidiane Dieye mooy président conseil départemental xam nga xamut ku dem ba xamoo yow kan mooy président conseil départemental Ziguinchor kooku mooy ñàkk xam réew mi. maanaam saaga senegal yi mun a weesu ngay tudd kooku naan mën naa gañe réew mi yàlla xam na ne bu doon ma ma teg milliard coono yaa koy gañe saam <laughs> sénégalais yi pare pour jox Amadou Ba seenum réew léegi nii maa ngi dégg seen ministre boobu bokkoon ñoom nee na 125 députés yi ko 125 ko na nañ ko xam nañ ko boo gisee ñu teg seen bakkan ci élection yi bu mu am 2024 xam nañ ki ñu tànn du koy gañe miin defet man miin defet laa ko tudde woon d' accord mais mais mais su ma waxee c'est que Touba dëkk la bu particulière mooy eh, coow ci ginnaaw xewoon na fi mooy sëñ Muntaxa naan nañ déplacé buñ déplacé après finalement euh, mu jeexase woon tuuti xel yi ñu bëri tiitoon ci anam gu ñuy voté fii ci Touba donc su ma ñëwaatee yëpp donte ne sëñ bi joxe waat na digal ngir ñu doxal ndaxte timing bi. matul sëñ bi daa ma joxe digal bu ñu wate ah déet man waxuma waxuma waxuma <laughs> déedéet buñ def yi fi politique. effectivement xam nga loolu du Cheikh Mahamadou Muntaxa euh, mu baax mi moo ko wax. Euh, ñu ko fi wuutu ñëpp ñi mu fi wuutu ñëpp muy ay baayam muy magam ji Cheikh Mamadou leen Bara mhm. luy sàmm war mooy dëkk bi ci lañ mas sa nekk mhm. ndax it bu ñu fàtte borom dëkk bi yéene ji woon dëkk bi mhm. daf ko santoon ngir jàng ak jàngale kon dëkk bi dëkku xam-xam la ak ku dëkk boo xam ne dëkku rawukaay la dëkk boo xamante ne fa nga war a sete boo fa taxee fan ngay sete ci àdduna moo ñu jaaxal kon Touba dëkk la boo xamante ni li fi borom bëgg rek moo fi am moo tax ñun décision xalifa général des mourides duñ ci commentaire duñ ci joxe suñu xalaat duñ ci wax. Mhm. ndigal jëfe la tudd loolu moom ku koy séntu ci ñun bàyyi boo nga dem fooy duñ ko def beneen bi ci topp Cheikh Mamadou Ndoxaan loolu la rappelé fàttaliwaat ko. Mhm. bi ñu ko fàttalee ñun ñëpp ñu ne ko euh, alhamdulilah. Mhm. ndax alxuraan sax li ñu digal mooy ñu fàttali ndax fàttali dina jëriñ. fàttali lu baax la sax. mais ñun avant bu ñu koy fàttali. mosuñu fee def benn activité politique. ñun bi ñuy wut permanence mooy fu ñuy daje def suñu activité politique. dañoo dem ba mu Mbàkke jël fa suñu permanence di ko fay weeru deux cent cinquante mille francs heure bu ñu wootee manifestation boo xam ne Sénégal yëpp la concerné ci guddi gi président Ousmane Sonko dina ma na loolu concerné wul Touba ku am yéene def ko da nga génn dem ba Mbàkke nga dem defi ko fa. Mhm. muy manifestation muy lu mën a doon ba ci concert casserole yi ñu mujjee woote. da gis bu ñu bu ah, ñu Ousmane Sonko yàgg naa wax loolu. effectivement loolu kay ku seetaan ku ku mas ko. ba ci manifestation yi gën a tàng la veille bi bu ñu amee yéene dem def manifestation dañuy woote communiqué du ko ko bëgg a def nag ñu fekk Mbàkke waxtu sàngam mhm. kon ñun war may dëkk bi moom kenn duñu ko jàngal mhm. ndax ñun Tuubaa bi muy nekk ab gott mhm. maanaam mag ñëpp dem dëkk njaareem ñun rek suñuy maam ñu dëkkoon Tuubaa bi nag bëri na ñuy wax fii ñoo xamante ni eh, dañ fee wàllu yaan commerçant la fi di jaay mu ndox <laughs> dañ fee <laughs> ab ab uh-huh. Sëñ Tuubaa sanc ko ba pare mu gënal ko ci dëkk yépp mu dem dëkk njaareem mënatul ñëw Tuubaa hmm. booba suñuy maam ñoo dëkkoon Tuubaa di jóge Tuubaa di ko dem ci njaareem di siyaara ji loolu ñu may seetaan te xam ma hmm. dinañ xam ne wax baax du jar ma di ci dugg ci détail loolu moom soxla ma kon dëkk boobu moom amul kenn ku ñu gën a xam mais amul kenn ku ñu gën a jox war may dëkk boobu hmm. suñu maam moo fi njëkk nekk chef de village bàyyi bàyyi Xaadim Buso menn xamoon ko baax bàyyi du Buso mu fi njëkk nekk chef de village kon dëkk bi ñun ñoo ko moom xam nañ bu baax a baax dëkk bi. seen dëkk la kon moom kenn duñu ko jàngal <laughs> kenn duñu waxit nan ngeen koy wormalee. te moom dafa juwoon coow kat. ñu naan ah. sëñ Cheikh Coro moo def lii mooy ànd ak xale yi. non loolu mooy Samba booy yi nga xam dëkkuñ Touba xam nga li mooy li ma wax ñun ñu dëkkuñ Touba waaw bu ma nee dëkkuñ Touba Touba murid yëpp fi lañ dëkk ku ci nekk mm-hmm. boo faatu fi nga bëgg ñu suul la fi. Mm-hmm. mais ay doxandéem lañ fi. Mm-hmm. waaw mais ku xam Cheikh Coro doo ko tudd mukk naan day day day encouragé. day encouragé su ma ànd nit ba mu dem ba xam ne joxul Touba cër bokk naa ci ñu koy gën a contre te loolu yàgg a ko wax mhm. président Ousmane Sonko toog na ci sama kanamu sëriñ ma ne ko sëñ Cheikh naam sëñ Fall mi su ne ma woon bàyyil Ousmane Sonko mi booy génn ci bunt bi eh, du ma ànd du ma la gunge mhm. kon ñun xam nañ li ñuy def ak li ñu doon loolu duñ ko jaawale kon leeralal ko ñuy seetaan ne leen campagne moom du am tu biir Touba loolu loolu loolu jërta leeral ñi ñuy seetaan xam <laughs> Touba dañu war a nañ ko fàttali yaa ko wax le rappel profite aux croyants non nga yàlla dogal na ñi uh-huh. ñoom xam ne ñu war a def uh-huh. Touba élection locale yi jàll. Mmh. ñun ñoo ko gañe. Mmh. te campagne ñu fi. waaw ah. élection législative yi jàll ñun ñoo ko gañe te campagne ñu fi. seedeel naa leen ko. kon ñun Touba moom xaw ma fan mais du dëkk boo xamante ni dëkk bu ñu jaaxal la ndax ñi fi nekk ñëpp ñun la ñu àndal. levée de fonds bii li diaspora bi am man nga mën nga mën nga ko méngale Touba loolu am te Touba xam nga ne dëkk boo xam ne dafa am ay usine barki dem bi ñu délivrer gis nga image li mu mm. yor ci loxo bi di ko jaay lépp lépp boo ko jaayee boo ko dajalee woon jaay ko na ba mm-hmm. boobu moo soog àdduna bi yëpp. kon dëkk bi xam nañ bu baax a baax a baax a baax li leen Ousmane Sonko wala du Ousmane Sonko lañ bëgg mais seen bopp lañ bëgg xam nañ ne li leen Ousmane Sonko woo bu sottee ñoom Ousmane Sonko ñoo ko ci gën a jariñu ndax Ousmane Sonko nag bu dee dëgg rek la yàlla bëgg fi mu doon liggéey bu fa toogoon bañ a euh, doxalin réewam bañ koo ñor bu saako ceeb doon jënd ñaar fukki junni mën na ko jënd te du ko jënd. Mm, mm. te terrain bu ñuy séddale boobaa dañ ko ci daggal wàllam comme ni ñu koy defee la fa nekk. Mm. te bu boobaa bu politique mën naa déclarer ay wee huit ak ay quatre quatre ak i kër. ku ànd moom mu dina jox. mais gis nga tey ñàkk fu ñu ko mën a jaar ci wàllu fa doon liggéey moo tax ñu indi ay complot yu terre à terre yi di ko fi indi. kon moo tax Sénégal yi lu mu leen woo a xam ne kii njariñam moo ci gën a tuuti loolu tax waa Touba ñàkk sago ci moom. te ji Ousmane Sonko li am ci ay turandoo Touba amu ko benn dëkk ci Sénégal. Mm-hmm. ni Touba mel ci moom man a laa jóge xam nga ne bu ma nee la ni Touba mel ci moom Ziguinchor ga mu juddoo sax meluñ ko ci moom dina la jaaxal. Mm-hmm. te loolu mu am man xam naa population Ziguinchor bi gis naa ni mel ci Ousmane ndax barki dem bi ñuy dem Goudomp bi ñu fay egg si parce que 23 jot na. Mm-hmm. mais dafa mel ni bëccëg la. ni ñu waa Goudomp teera xale yi def yaram mu ne di ñu topp suñu oto yi daw. te déggee dañu doon teeru kon ñooñu am nañ engagement mais li ñuy am engagement am engagement tolluñu waa Touba ci ve waa Touba leen ëpp engagement ci Ousmane fuuf hmm. bërigi de wax na ko sama page Facebook mais yaakaar ji waa Touba am ci président Ousmane Sonko ci wàllu politique bu ma kenn jabolise nag ci <laughs> bu ko yàlla tas a hmm. i dërëm ak seen i ñaar dërëm ci levée de fonds yi ci ñun lay jaar ndax numéro yi ñu jox gis nga ko hmm. dafa mujj dem ba numéro yi ñu joxoon dafa plafonné d'accord te loolu du du du kon Touba levée de bi ñaata la ci non Touba levée de moom seen chiffre joxe guñ ko mais buñ ko joxee Sénégal yëpp dañ dar seen gémmiñ. dégg nga hmm. lii nan la mën a jógee Touba.